bismillah waaye géej gi doo leen ci wax tribune yéene kaa ne ñeent ci ay nappkat day waaw daal a ñuy réeraat nag ci biir géej gi le mardi daal maa la ko wax musiba amati na de kenn daal lañ forcé diwaanu Mbuur gële waaye gis nga Mamadou Ndiaye Boubacar Diouf Daouda Seck Baye Mbaye Ndiaye waaw danoo réer de mi ko tijéene accident yi nga xam ne nag maanaam ñoom ñooy am ci biir géej gi waaw ci ñetti weer lu tolloog ñeent fukk ak ñett ci ay doomu aadama day ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te gis nga ca jamono joojee nga xam ne nag ndaw yaa ngay dee ci biir géej gi day tey dooleel ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo seeq nag élection locale yooyu waaw ña ngay rayante di maar di daali waaw parce waxtaan di dialogue bi nga xam ne moo amoon ca sous commission dialogue boobee waxtaan nu ñu tax la de day dugg ci nopp bii génn ca nopp ba ca des parce que mi nga xam ne nag mi ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar waaw nee na ngir ñu organiser nag élection yooyu liggéey bi daal lu toloo fukki weer ak benn kon la war a durée é eh way samba moo njaay Cissé na ak élection ba 2022 day moo xam ne ni mënu koo nangu te ah, na ak élection yooyu tey te duñ ci d'accord ëllëg naa la ba jub bataan ba a waaye gis nga opposition bi société civile non alignée ah ñoom dañ laast organisation élection yooyee Macky Sall la ñoo ma day weeru février 2022 waaw ba tey ñu toog xaar leen le quotidien yéene kaay ne ajati nañ ko de évidence yéene kaay ne waaye opposition bi de nee na ñu luy njiit nguur gi ci boppam mooy njaag ca jamono jooje Sud Quotidien nee na coowal Ousmane Sonko day day delluwaat ci bi nga xam ne kon député kalaame woon nañu ko ngir ñu nii la topp bi nga xam ne kon ñu ngi koy topp nag jiital Pastef mi lé l'observateur ne en tout cas coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko day jur na musiba manifestation ay musiba yu rëy parce que lu ëpp ñaari junni ci ñoo xam ne nañu ko de gaa ñaa nga toog seen kër de mardi taali liggéeykat contractuel yi nga xam ne ñoo nekkoon ca osa dàq nañ leen ay laay la

li ma ko wax day wala du wuy ji tam am naa ci moom confiance moom Ousmane Sonko waaye dara pour éliminer Ousmane Sonko la woon rek Bougane Gueye Dany mooy wax du samay kàddu de njiital gëm sa bopp tey waaw daal dinay songu attaqué na discours yi nga xam ni kon nañu ko yëkkati nekk ci wàllum xeet diw joolaa la séeréer la tukulóor la olof la ñeng ñeng ñeng patiti patata waaw Bougane Gueye Dany nee na te loolee nag mi ngi ci ñooñu ak jegeñaale président Bougane Gueye Dany ne président Macky Sall ci boppam moo a wax ak jege ñaala ñu lee ci seen discours yooyu nga xam ne lu dangereux la ngir jàmmi réew mi jiital gëm sa bopp day waaw nee na ay chef de l'opposition yooyu yooyu ay mbirum caaxaan la gars yi dañoo bëgg a divertir exclusive yéene kaa Sonko de waaw fam Diop yanqoo ba jatara éliminé na Sonko Madior Fall ma ngay téyeer machine 24 heures yéene kaa waaye gis nga nag buur buur la doomu buur buur la yooyee waaw dañu ko soxlaatul nag laa la wax alintin na dëgg la gis nga politique bi ci boppam sax léegi amatul sens et Sénégal politique bi dem ay élection sàcc ko aj ay élection jël ay doomu aadama tëj leen ci ay policier di ray ndool gi fi ne loolee ci boppam kon moo war a sensé la wax looloy dëgg de yéeni kaa gi ne waaye nag gis nga politiciens yi lée nekk ci nguur gi ak bi ah nañ xam ne danañu jàkkaarloo ak génération ay jeunes yoo xam ne la woon woon ni na de la woon téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti milliards yi ñuy laaj Karim Wade noo ne ci créé bi waaw Macky Sall est-ce ah ne waaye nag bu dee oto yooyee dañ koo def ci turu parti démocratique sénégalais day waaw nguur gi mënu koo nangu de parce PDS ab association bu ñu nangu la ma fay PDS nee man de xaw oto yooyee kan moo ko moom mën nañoo nekk ci turu PDS wala ci turu Abdoulaye Wade wala ci turu Karim Wade Amadou Gueye day maam

kaay parce que xale bu jigéen bi day daal di lay woo nag responsable APR yu Pikine yooyee ne leen xoolaat leen seen image bu baax a baax maanaam seen taxawaay ci kanamu askan wi lé rama Macky yamu ca dee parce que naqarlu na ñi nga xam ne président Macky Sall kon da leen a wóolu xale yi ci boppam sax xool ñoom ñoo ko doon défendre rama Macky ne xale yi ci boppam war nañ leen a bàyyi xel cri bi yéene kaay ne 2024 waaw carte gi day changé de parti réew mi léegi changé na terminé yéene waxuma la sax diggante 2007 ba 2013 Idrissa Seck li ko fi jot a bàyyi dem seen yoon démissionné waaw waaye mbir maa ngay continuer ba léegi ni la day lii day waxuma la góom la waaye est-ce que seen feebar bi ab docteur du politique mën na koo faj ah te sax doon nañ yaakaar ne Idrissa Seck rek lañ ko fal ca conseil économique ah dana tax nag ba nit ñi ko toog ak yooyee waaye ginnaaw ba dara gàncax mi nga xam ni ko nekk na ndomba tàkkam dem day Déthié Fall a ngi ni lée di waaj a créé à parti politique am laa la wax Déthié tam day dem de ñu ne déet ni waaye Abdou Aziz Mbodj responsable juridique ci élection yi ci parti réew mi moom it nee na tekki na ndomba tàkkam la ilaha illallah yéene kaa gi ne tout cas li wóor mooy a Seck daal la ñu koy tuumaal moom soow ah mooy faalewul kenn kippewul kenn ci responsable yu bëree bëri nag tribune yéene kaa waaye mburoog soow bi moom mbaadu daa mujj saf kaa ni moo ma daaxal Eli Charles Molo ci direct news nee na gi la nekkul dëkk bu ñuy jaay te nekkul tam dëkk bu ñuy daal yéene kaa gi ne dañu jaxa-jaxatee nag dre su ndarga gëlee chinois yi dee ngay takk seen i bagage de ca bël ba Alioune baabooyo 12 novembre waaw 7 milliards la jar allahu akbar juróomi weer lañ ca teg chinois yi daal di teg seen bagage mu waay kon nag ministre de la bes kooke war indi ay jindi leeral askan wi laa la wax te ba lu tolloo ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay doomu aadama ñoo fa dee allahu akbar octobre 2003 ak léegi yéen kaa ngi ne nag mbir moomee dañ koo war a leeral goo xam ni scandale rek <laughs> waaye scandale a rëy scandale pétrole bi déedéet ko teree boo paree ma la alaaji tëjal dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meeg ci àdduna si application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleeg coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement